jërë ngeen jëf mbokk sa safoo 28 pro ñu ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ci li gën a fës ci jamono ji muy agression tey jii nag di altine juróom-benn fan ci weeri juin meeku nañ lu ni mel ci dëkk bii di Touba ci quartier bu ñu wax Xayra ñun dañoo manqué léegi kaaraange muy Touba parce que yoo xamante ni mos foon a am tey bu demee ba tàmbali fi am rek dèjà kaaraange gi des na kon dañuy njëkk a woo service amende bi nga xam ne moo yor kaaraange dëkk bi nañ di parce que dañu ay xale lii ay diggante deux heures la nga xam ne xale bu jigéen bi ñu doon pompe ñoom pour jël xaalisam yàlla tere bi ko oto toppee ay deux heures nga xam ne fii kenn doxut yàlla dafa dogal yàlla weer leen ñu garab gi ngay seen moom lañ bëgg kenn ki daw ñu jàpp kenn ki biñ ko jàppee euh, nga xam ne kër gi nii fi lañ ko te pour kaarangeem ne kon dañ koy rey ndax fii ngay gis nii néew bii ngay seen nii fa lañ ko doon protéger pour pour kaaraangeem pour woo police ñu ngi woo police ba sonn ñu ko jot à la fin police ñëwee avant police di ñëw. ndekete moom néeg bi ñu ko tëjoon pour dafa ko kaaraange dafa mujj dagg senge bi encore ca kaw ngir bëgg faa jàll. léegi nag bi bi loolu amee nga xam ne lii du tey du du léegi lañ ko def ay fan yii jàll def nañ ko fii ci xayra te nemmee ko dañ ko fii ci parce que fan yii jàll am na benn benn jigéen goo xam ne doon dox dem ab sareet jaar ci koñ bi nangu ab téléphone am ak 100000 francs ba léegi tey ñu jël ay xale ci Touba yi dugg ci ay ay ay ay sécurité bi nag dafa dafa dafa matut nga xam ne police bi ñu koy woo daanaka xaw naa yéex ne kon dañ koy faat ndax sama loxo baa ngi nii dama doon protéger pour bañ a lor ko moo waral ma dagg ci. may wax na nag képp koo xam ne yaa ngi Touba ak koo mën a doon nañ téye xale yi